jaa ngeen jëfati mbokk yi woyeti ànd ak ñun di ñu déglooti ñu amaat mbégte te gure yi ginnaaw bañ ko delloo sant moom borom bi julli ci sangu-sang yi mati waajur yi ñaanal kilifa diine yu aada yi ñaanal mbokk yëpp yi nga xam ne jamono ji ñoo ngi woy di ak ñun di ñu déglu boole ci di bàyyi xel ci seen rajo bi di Ocean FM ci seen émission bi di lekk geek naan gi di lu am solo ci dundu doomu aadama mbokk yi comme ni koy baaxoo di ko defee rek saa su ne ñu daal di jukki leen loo xam ni ngëneel lay doon ngir buñ ci noppee ku ci nekk xam njariñ wa nekk ca moom tey mbokk yi li ñu war a waxtaanee moo loo miin loo leen xam loo leen di jëfandikoo ci yu bari bari ñëw rek ñu fàttali ci ngir buñ ci noppee mu gën a yaatu mbokki yi li ñu indi tey ci émission lekk ak naan muy Kénkéliba xam ngeen ne Kénkéliba meññeef la goo xam ni boroom xam-xam yi gëstu nañ ci gis nañ ci ay ngëneel yu bari réew mi ñi fi dëkkee xam nañu mbóot ma nekk ca bari lool ca loolu loole lañ fa yéene nag jukkiwaat ko rekk wax ko ngir ñu gën ko taxawal kinkiliba garab la goo xam ni dafa am lépp loo xam ni nit soxla na ko ndax damay wax ne mooy meññeef bi lay yokkay dund meññeef bi lay aar ngir nga muslu ci yenn xeetu feebar yi xew loole mooy kénkeliba ndax kénkeliba dafa am ay principe actif yi ca nekk te lu ci nekk ci principe actif yooye daf ñuy dimbali di ñu aar di ñu protéger di dundal suñuy cër ngir mu bañ a ras waaye di dundal suñu cër ngir mu bañ a am xeetu feebar yoo xam ni xamuñu te lu ñu xamul lu ne su yàggee mën na ko tuddee cancer kon soo ko dee farataal di ko jëfandikoo moom dina la musal nga mucc ci li nga xam ne moo di cancer. lii di kinkiliba principe actif ya nekk ci moom dina la aaral saw xol te xel bu aaroo mën ngaa mucc ci yenn xeetu feebar yi nga xam ne mën na ko dal te li indi AVC. kon nga gis ne yow miy déglu soo ko dee farataal di ko jëfandikoo yàlla mën na la musal benn ci vieillissement de cellules yàlla mën na laa musal ñaar ci li nga xam ne mooy feebar yi nga xam ne mën naa song saw xol ñett yàlla mën na la musal ci wàllu AVC yàlla mën na la musal ci cancer te euh, kenkiliba mag ñi daan nañ ko jëfandikoo boo xoolee mag ñi sax seeni jamono néew na lool ñu doon jàmbat lu jëm ci wàllu suukar jabet ndax daan nañ ko boolee ci seeni mbir ba jëfandikoo jëfandikoogee ñu ko doon jëfandikoo bokk na sax lay régulariser seeni suukar ba du am benn jafe-jafe ci seen wàllu dundi loolee moo sababoon seen bët daa leer seen cër daal di dund ñuy am fan wu gudd macha allah ñoom mag ñi ndax dañoo fonkoon li nga xam ne moo di kinkiliba kinkiliba soo ko dee farataal di ko jëfandikoo day régulariser sa tension moo tax ki amee hypertension bi yéeg dañ ko koy digal waaye ki am tension bi wàcc dañ ko koy tere kon nga gis ne njariñ wa ca nekk dimbali nit ki ci wàllu feebar yoo xam ne mën naa dal saw dënn ay bronchite ay toux wala yeneen xeet dina mel waaye nag daf lay dimbali di la yombalal sa tuur ndox te nit ki saa su ne dafa war a tuur ndox évacuer yu bees ngir mën a am leneen loo xam ne su ñëwee mën naa liggéey loolu Kinkeliba di ko jëfandikoo mbokk mi dina la dimbali yombalal liggéey wi nga xam ne sa waxtaan woowee daf koy def boo dee jëfandikoo Kinkeliba Kinkeliba dina la mën a dimbali ñi xam ne dañoo ay metit yu tar ñi xam ne ay constipation chronique ñi nga xam ne dañoo am ay jaare waaye xeetu feebar yoo xam ne Kinkeliba dafay raxas saw der yokkalaw car yokkalaw dund mooy si Kinkeliba Kinkeliba daf lay aar ci wàllu microbe waaye Kinkeliba sax daf lay dimbali mbokk yi nga xam ne yàlla daf leen natoo ñu amee hépatite nañuy farataal di jëfandikoo kinkeliba rax di dolli ki nga xam ne yëf yi avancé na lool su dee jël kinkeliba deux fois par jour chaque quinze minutes dina ko daal di dimbali yombalal ko yëf yi waaye mbokk mi dégloo ko seetaan kinkeliba nag am na ñoo xam ni daanaka dañ leen wax ñu moytu ko ñi seen tension di wàcc waaye jigéen ji nga xam ne dafa wan lool su ko bëggee jëfandikoo dañu ne soo lekkee ba noppi toogal lu mat une de temps nga daal di jëfandikoo. waaye nag mbokk mi dégloo ko seetaan lépp loo gis lu am njariñ lu ne dafa am solo am nañ ko war a tëggee ngeen nga mën a jariñu ndax lu ëpp lu ne dafay gaañ te lu ëpp lu ne mën naa indi gàllankoor te jëmu bi nga ci bëggoon mooy daa wër kon yow mi déglu te bëgg a jëfandikoo kenkiliba wutal 20 grammes xobu kenkiliba nga raxas ba mu set jël sa liitaru ndox wu sell daal ko def ci casserole ci marmite boo xam ni kat matière bi baax na nga daal di ko baxal diiru juróomi minit soo ko baxalee ba mu noppi nga bàyyi ko fay fa nga ko baxalee bàyyi ko ñaar fukki minit mu sedd soo noppee nga segg di ko jëfandikoo waaye nag ndax su weesoo beneen waxtu wu dul loolu su ëppee rek day soppi couleur te couleur bi bu demee ba rougeâtre su boobaa posone lay doon kon nga gis ne lu baax baax na waaye su ëppee ngaañ la kon mbokk yi doon dégloo ko seetaan li la ñu indi woon tey seen mission lekk geeg naan gi di wax ne farataal leen ko di ko jëfandikoo xale yi nañ koy ndekkee ndax ndekki ko dina la dimbali ngay capter image dina dimbali ngay capter ay leçon waaye dina la dimbali ki nga xam ne bu du fàtte waaye ki nga xam ne dafa am feebar woo xew day jàpp dépression wala yeneen am jafe-jafe jëm xel di ko jëfandikoo waaye ak ki nga xam ne dafa am ay feebaru lox wala yeneen xeet yu nu mel waaye nañu dellu siwaat cosaan nañu dellu siwaat di fi mag ñu nekkoon te di ko jëfandikoo te gëm naa ne suñ ko dee jëfandikoo dinañu muslu ci li nga xam ne moo di AVC mi xew dinañu muslu ci diabète bi xew dinañu muslu ci hépatite bi xew dinañu muslu ci métit dinañu muslu ci leneen leneen te mën nañu njort ne su boobaa fan wi mën naa gën a gudd ba ñu àgg fa mag ñi doon dundee muy téeméeri at yàlla yàlla defal ñëpp jaa jëf mbokk yi doon way doon ànd ak ñun duñu lu jox leen dox daje ba dimanche bi di ñëw ci seen émission lekk geeg naan gi si kàddu gi ngeen ànd ca Abdoulaye Ndiaye jaa ngeen jëf